ginnaaw waa ji nag allo ay waaye ndaame looy sire ndaam ndaame looy sire jógul sama xarit bi <laughs> sëñ Mahmadan loo waaye nam naa loo ndaam ci ah sëñ bi fi da moom namu naa lool fi da moom moom fi ne moom la ma yónnee moom jeex na moom fi ne nag loo tey tey sëñ wax ma den waaye barki dem rek loolu laa lay waxtaanee njaxam wallaay Ndiaye loolu laa am siré ah moom daal doy na waar moom. ah gaaw maa kar gi wala kar yow sama gaay nga waa ci loolu maa ngi nii rek ñàkk solo nga xaw moom daal daal déggal bi sama xol bi daal sedd ah lii baax na nga rek leen xabaar moo sama kër bu baax la. ndeysaan non nice na. trop macha allah ba uh-huh. léegi dafa am cofeel bu jóge ci man nit yow. dégg waaye li may romb lépp lépp lépp wax dëgg yàlla bu naa la ko ma la ko wax woon nag bu ndajewaatee. billahi dama la ko. ndax lii mooy Mbacke. waaye yow tamit jabaay bëgg yëgoo koy fay. waaye yow jéegal ah yow tamit xam nga nag doo bëgg kenn muy bañ. bañ ndeysaan. yow tamit jabaay ku la xamul dégg na la. waaye lan ngay bëgg muy bañ yow koo bëgg ndayam liggéey na. Eh, lan. eh, eh defal nànk nag. bëgguma nit ñi di ma xamal. ndax damay damay ci dëkk bi doon naa jox. ak feneen toolu tamit laa ko too dàq gën la. waaw kay suñu kër ak kaar. Ah. waaw bëgg nga doxantu kër gi nag. heure bu baax bi la. heure bu baax bi la day fekk kër gi seer na tamit. waaw defal loolu. noonu laa koy defee. bëgg ci waay. yow <laughs> noo ko bëggee rek laa koy defee. maa ngi dem dégg nga. kontaan naa. ok kontaan naa Ndeye. lii de ku ko waxoon du ma ko gëm sama. bu mu ne woon xale bi su ma ko nee nopp naa la rek mu nangu. du ko gëm lii moom bu ma ko waxee njaxat du ko gëm. ne ma naa ko dinaa ko jël.

moom koñ bi rek. ah wax jigéen jërëm ñu bari. <laughs> gis la bëgg la nga bañ ma noppale loo ca xam. maa la wax loolu kay. waaye mi ay wax ndànk waaye xanaa sax. dama bëgg niroog yow nii la soppeeku de bu lu baax. la baaxul. maa bëgg niroog yow xeesal. waaw góor gi xeesal lu muy doxaanee jigéen sax nag waxatuma la nag muy karaate. ngaa réglé kat. loolu nga bëgg. loolu nga gis. amul problème yaa ko traîné. tegal sa loxo fii. ba jëlu ma. tegal sa loxo. xanaa kay mooy jubóo ne. toog wala ginnaaw bi. waaye noo ko sentiree rek yow. waaye xanaa da ngaa tiit. da maa waaru. mais ça va. kay. yaa si jàmm. fi mu kay nu mu nii maa nekk ci waay. ah waaw. gis naa loolu kay. day wàcce sa kanam tuuti. waaw aj ba ëpp de. ko aj dafa ëpp. waaw bëgg naa la kay. ah tey sama journée nar daa neex lii. teel ma woon la. lii mu cër bu la neex nga dagg ko ci man. waaw. du def noonu. daggal loxo rek loxo bee daa ko tëjee. lii ko Saal lii la bu ñu ci jàppee mën nañu sax neex na. waaye yow nag doy na xama xammeliku bi dafa doy taluma ko man wala nga bàyyi ma dem man ma déedéet ragalu sax waaw lan la bi ma jàqar layow li ci man ah, tol na ne wax muy gaaw tol na ne xam ah, tol na noonu wala booba léegi mun maa ngarale képp li waat sama tànk képp ko nànk nag ah, waaye wi ma kër ga de damaa bëggoon nga nga doxandu fa rek waaw hmm. siyaare si ma ñu def yëf yi mag hmm. <laughs> nan ko sentiree. loolu laa ko bëggee kay amul benn problème. di nga laa la ko defalee yàgg na ni na. defal ci dem dem dem dem rek. dañ xam kër moo dinaa ñëw. boo jàddee rek. waaw amul benn problème dinañ gisante. waaw allez merci. <laughs> moo mën a bind de wala lii lii lale moom kanam gi ak ginnaaw gi lépp rafet euh, jabar maam njaxat tey nag dama bëgg dama kontaan te tey li ma yëg tey dama a noosal loolu ñu naan surprise li ko tubaab waxee man de surprise sa sant bii waa looloo tax dama laa bëgg yebal Touba nga dem ba Touba nag dina sori waa naa la jox paas mm. alors Dakar yi moom ngay jël léegi boo demee gën ci wit ressource yi mbës Abdou Khadir. mel na boo demee da nga fekk békaay mooy toog joor biir bu lañ. békaay waaw gan foofu boo ko demee ay xarit safar nga fay nekk. mooy kii mer kii toll groupe ni waaw kay xam naa ko. léegi nag ñoom lekk yu neex la ñuy defar. ay hamburger ay ay ay ndawal sandwich yëpp ay quatre-vingt-onze ak ay fataaya yu gàdd yoo xam ni. même man mii. te boo demee ñoom xale yi fa nekk dañu sawar. man mii sëñ Bass lañ ko tuddee. léegi man mii noonu laa amee yow teew yow. not tey dama am génn. xam ne tax yow rek tax mënumaa dem. waaw xam nga damay def ay cant à chaque année. léegi nag waa mouvement xaw ma nan technique seen dimbali ma ci nee Touba borom sono yu neex neexul dara gannaaw borom sono yu neex yi. te ñoom ñoom maam Cheikh nekk fa rek. xamuñu dara ñoo war a seet si. yaa ngi dégg ma bëggoon nag wax dëgg yàlla kam ka ñooñu ay kilifa a ah ma bëggoon nga nga nga. xam naa li ma la wax demal rek yow. non man mënumaa dem. man dama. yow mënumaa dem dama aati. yow xanaa mosoo ñam lu waa resto sëñ Bass Abdou Khadre toog. léegi man mosoo ko ñam man du ma lekk resto euh, man cere laay rek man cere man de cere la ca naa leen déw guddi gi a la gàttal. déedéet tool mi. kat baax ma tool mi. waay waay fii la toog nii si digg rek. muy taxaw day neex muy toog day neex. wallaay day baax. yàlla na ñaari neex neex ko sama xam la maa moom la. waaw dëgg la de sa chéri la xol day gise moom mii nag moom lay waaj a takku ab aaw. biddew léegi nag ma bëggoon. xam nga ñëw nga nag ah ma présenté waale ko benn yoon rek mu naa kii mooy njaxal. ah njaxal sama la sama genn wàll la. Sëri. Sëri yow yow li nga yow lan mooy sa problème kii. waaw bàyyi ko kii dafa comprendre eh, benn génn naa ak Aysa Aysa gaañu Fatou gaañu soxna gaañu Kumba gaañu suur na juróom benn gel bu fekkee ne na nga koo def moom yow leen juróom benn ah juróom-ñaareel. waaw ah, juróom-ñaareel waaye nettali woo ko. xëyewu la góomtoowu la. làqoo naa la juma jumaay Tuubaa ji yaa ngi waaj a de. waaw bu dee boo koy nam di feebar. na sama waaj déedéet déedéet du ma jabaay jabaay damay ni may def kay dama ko loolu xëy naa cëpp boo cëpp di feebar. Ah. a a neex ko wax jabaay kii nii la mel. ah déedéet jabaay xanaa xamoo ne ah, wuy ma kii ragal naa. waa kii ñemewu ma. waa wuy ma kii jabaay jabaay ragal naa. waa diw ma la dikk ma la mën naa fi ne nii waa Gambie ak waa Sénégal seen xeex lu fi amoon moom mi moo ko moo moo leen jaxase. kii day jaxase sax ndox suuf ak ndox ba ñuy xeex. waaw kàmm waaw jabaay jabaay ñemewu ma bàyyi rek bàyyi rek ñu jabaay yow kay moom doy na. mooy sama waaw. mu naan. na ngeen di dem nii. waaw bàyyi ñu dem rek. jaxar ribbaa saako deret saako dëtt loo ci def yàlla bu mu neex ñii ma leen bàyyi nii dañuy am lu leen neex